je pense que war nga ko xam maanaam ay grain de mm. grain de d'or tey jii Ablaye Sylla neen day porter plainte ginnaaw buñ yàqee honneur am maanaam ngawti ngawte aw turam jàpp nga ni lu yàlloo la également nekk koo xam ma ko ma ma sànq di Ablaye Sylla c'est l'un des hommes yoo xam ne président Sall moo leen construire maanaam moo leen def li ñu doon tey mm. ah moom it mu ngi accuser président Macky Sall parce que nee na deux mille vingt fekk ko fi la a raison bitim réew la ko fekk te moment boobu ñëpp xam ne neexawul woon ak président Macky Sall xaw nañ amaat tuuti déggoo bu am seen diggante. Mhm. mais jaxasoo waat nañ looloo waraloon candidature Abdoulaye Sylla mhm. ci élection présidentielle yi dafa dañoo ñoom ñaar dañoo xuloo woon. Mhm. te boo xoolee am na révélation bu Babacar toure def. mu bu Kewoulo. waaw mooy ci motion de censure bi Babacar Babacar Touré nee na ci benn une bu ma liir nee na motion de censure bi lépp ci même charge bi la ah. nee na motion de censure bi même bu demoon du jaal waaw. donte gars yi ñoo fa yor majorité mais nee na du doon njaago laaj ma lu tax. lu tax nee na parce que Abdoulaye Sylla bu Ecotra. Mhm. dafa waxoon nag ak 36 députés yu Benno Bokk Yaakaar 36 députés yu Benno Bokk Yaakaar. Hmm. te ñooñ joxoon nañ ko accord pare woon nañ pour bu ñu demee dañuy yëkkati seen loxo ni ànduñu ci motion de censure Abdoulaye Sylla il est ko waral. waaw mais nee naa la xam nga ne xawut woon ci dañu maa ne ak président Macky Sall loolu taxul moom mu bëggoon na nekk candidat xam nga si élection présidentielle yi. ñu recalé ko woon. Mhm. même logique boobu la topp. nee na looloo bañ mais Macky Sall ñu yëgal ko informé ko loolu parce que Macky il est informé bi mu xamee loolu si la xëy jël communiqué tas coalition Benno looloo tax nee na looloo tax Macky tas coalition bi. parce que il a été informé de ça te nee na Jomaay yëgu ko Sonko yëgu nee na Abdoulaye Sylla bu Ecotra moo loolu. li nga wax nii am naa benn information au moins bon on m'a am na dossier yoo xam ni daf ko lem yóbbaale tey jii bu ñu waxee lii nii daanaka loolu bu fekkee am na ko ñu teg rek ay fën Abdoulaye Sylla coowam daal di dekk jëm ci or bi. est-ce que woon ma ñu insinué ko yow fi nga xalaatee ni sama sama xel Macky Sall euh, fësal lii ngir jàpp jàppale ko je sais pas je sais ah, nee na parce que Abdoulaye Sylla de yoo xam ne da nga wax da koo lem yóbbaale alors mhm. da koo lem yóbbaale tey bu fekkee li nga wax ni am na que ne doon na jéem a xam nga loolu ñaari semaine ci ginnaaw la am. bu fekkee doon na jéem a wax ay député ngir ñu daal di jéem a bañ a voté motion de censure bi. est ce que jàpp ñu kon Macky Sall moo jot a surxal lii ndax kii mi ngi persiste que ni fekk ko woon Sénégal ordre de mission bi nga xam ne turam moo ci nekk yoonam nekku ci moo tax day porté plainte porté plainte bi mu wax tey lañ ciy tudd mooy daanaka a taxal que ni a taxal na xam nga xam nga loolu la Abdoulaye la ay ko tra wax mhm. parce que nee document yi ñu defar nii contre moom dañ ko falsifié c'est des doc c'est des faux documents loolu tax mu porte plainte ordre de mission bi waaw li nekk waaw mais nee na nag faux document la ah. xam nga loolu tax mu ne day porte plainte le président Macky mhm. parce que nee na loolu ko ci topp loolu ñu koy wax fekkewu ko mhm. moom fekk ko fii te li nga wax nii dafa am réflexion bu garaaw bu ci génn mooy coïncidence bi lii est-ce que simple coïncidence la. qui a fuité l'information. hein qui bi dem na. ban ci wootee Abdoulaye Sylla. tu as vu. Mhm. moom moom en tout cas ces derniers neexoo neexoowut woon ak président Macky Sall. Mhm. te ab kéwéloo Babacar Touré wax de te li ma lay wax lii. Mhm. xoolal ci biñ demee quelques jours après juste. après jour après motion de censure bi gars yi bëggoon déposé. mais dañu motion de censure bi. motion de censure bi da doon da doon da doon da doon en réalité. ci échec la doon dem même bu ñu demoon fële. d'accord en tout cas on boobu nag. bu nga di wax nii nii. Ah, daf ma gën a kii quoi information mais noonu la parce que ni ni mu mel nii ni mu nii daal doy na waar sincèrement man dama wëri woon on m'a am na information xam ne Macky Sall da koo buub yóbbaale léegi nag da nga a faagal wala dara mu tànni sa bos peut être nag foofu <laughs> nga xam ne mooy Jérôme Bandiaky sniper du président de la République Macky Sall daanaka quinze ans d'accompagnement compagnonnage ñu ànd ko ñoom ñaar tey jii gis nañ que ni placé nañ ko sous mandat de dépôt di ko toppee lu bokk ci ñetti infraction bokk na ci lu ñu duppee usurpation de fonction maanaam doon woote ab agent bi nga xam tàppe nañ ko ci passeport diplomatique am ci yoru te nekkul agent wu dara maanaam du police du gendarmerie du dara bokk na ci également euh, possession d'arme sans am autorisation moom mi nga xam ni moo di Jérôme ki bokk na ci également leneen loo xam ne ñi ngi ko koy toppee li nga xam ni mooy ana beneen bi sax arme illégale usurpation d'identité ak li nga xam ni mooy euh, escroquerie également maanaam logement de fonction bi nga xam ne yoroon na ko moom Jérôme Bandiaky tey mel na ni tey Jérôme Bandiaky daanu na dem na kaso mandat de dépôt mais est-ce que jot nañ fii lay yam ginnaaw parce que Moustapha ni c'est une mine d'or qu'on a qu'on a arrêté maanaam li nga mën a jëlee ci moom ci information moo bari. en bu ñu ko toppee de moom. Mhm. jàpp naa ñu bari mën nañoo suro parce que Jérôme Bandiaky seen lañ ko tudd <laughs> mhm. eh. nga ca. dàmbooj gis nga plainte am moom it doo doo déposé na plainte te est-ce que plainte yi ci dàmbooj rek lay yem ngul hmm. xam képp ku amul woon occasion mën a porter Jérôme eh, Bandier ki plainte hmm. te amoon nag moom ay xiini ñaax hmm. mais c'est l'occasion mu laa Morgan ji ñi moo taal këram am na journaliste nekk Walf également Pape Sané di ji ñi moo ko dàqoon tamit waaw moom laa lay moo tax man la ñu bëree bëri mën nañ suivre le pas de de Dame Mbodj porte plainte ko oui parce que kii li ñu ko tudd dafa bëri te moom mooy kan en réalité. man nag dafa am foo sama xam-xam dafaa tënku. mooy mooy ci garde rapproché. bu war a mën a am un logement de fonction. mën a am ay passeport diplomatique parce que waxuñu benn ay passeport diplomatique. Mhm. loolu nag sama xam-xam dafaa tënku dama xamul kañ la garde corps daan mën a am possibilité yooyu yëpp. d'accord am ay ay lañ la wax ay passeport diplomatique. am véhicule de fon am am euh, maison de fonction ba pare di entraîner ci waa BIP. nee nañ ci BIP la doon entraîner. ba pare yor ay armo yoo xam c'est c'est des armes am am benn groupe de sécurité boppam aussi. oui sniper sécurité. sniper voilà ak ak ak ak ak ak armes yi ñu wax ni yor na ko sans autorisation xam nga loolu rek bu ñu ko si toppee rek. Mhm. mën nañ ko si daan en réalité. Mhm. kon jàpp naa ni mbiram. Mhm. dafa laaj ñu def ci. benn attention bu particulière te buñ ko toppee mën nañ mën comme ni nga ko waxee ah comme li Moustapha Diop wax. mine d'or la c'est une mine d'or qu'on a arrêté la oui. te enquêteurs yi du ñuy ndaw Fallou yow Bachir du ñu ñu tuuti. Mhm. boo gisee ñu dem jëli ko dem def perquisition ñëw bett kook et cetera tout si yooyu yëpp affaire la quand même. tu as vu. Mhm. tout cas daal que justice soit fait mhm. te nañ ko topp jàpp naa ne bu ko toppee jusqu'au bout. la bëgg. ci li xewoon ci événement mois de mars yëpp mën nañ ci am lu leer a leer d' accord foofu am na solo ñu attaqué directement li nga xam ne moo di politique bi gannaaw ponk li nga xam ne moo di justice ak li muy doxee la reddition des comptes Serigne Niang gis nañ ko ne am na coalition bu bees bu daal di judd ci opposition bi fas yéene diggante mbagg ak Sonko ak Diomaye jëm ci élection législative yi ñu ngi duppee seen bopp sàmm seen i kàddu dale ko ci taxawu bu Khalifa sàll Agir bu Thierno Bocoum Déthié Fall également Anta Babacar Ngom Pape Djibril Fall consort Khalifa ñoom ñëpp ñu ànd ci mbir mu ni mel tey mais nag démb li ci jot di information ak léegi mooy Déthié Fall mi leen rallier wax dëgg yàlla ci ginnaaw duñu di kàddu yu bari non Déthié Fall il doit rejoindre Pastef Ousmane Sonko ndax ay ay nit la ñoo xam seen ànd yàgg na rafet même si élection deux mille dix deux mille vingt deux je pense législative yi gis nañ liste bu échegoon tout ça boo xam ne ci loxol Khalifa euh, Déthié Fall la jaaroon ci li xam ne moo di DGE ma Sonko sax vidéo bi boobu peut-être yaa ngi koy gis mu naan ma woo Khalifa ni ko bu ñu demee ba Mimi deful nee na nu ñu def euh, Déthié ni ko non Sonko ni ma woo Déthié ni ko bu ñu demee ba Mimi affaire yi jàllul nu ñuy def nee na mu ni ma dinaa jël samay responsabilité tey jii nag ba tey li ñu nemmeeku mooy ginnaaw bu Déthié rallié fële pastifiens yu baree ba dañ jàpp ni la trahison était vraiment volontaire à cette époque maanaam li nga xam ne Déthié moo ko defoon taayaanoo ko ndax lii mu def nii